ku bëgg a tedd ku bëgg a am teraanga da nga koy liggéey mais du tribunal bii moo la koy jox.